Adja tey damaa dem ci internet bi ubbi xool ci suba ba léegi gis gaa yi di teppi di dajj di xotti di xorom vidéo bu mu ubbi gis ca ko yaru ki nekk fii ndeysaan borom Dakaaru Barthélémy Dias loolay problème bi ñi ngi dajjee ko xottee ko lu ne waaw léegi nag euh, dañuy dem mos as lëf li tax li ma jàpp ni moo tax ñu di ko saaga ndax damay gis saa yu ñu saagaa rek dugalaatal ko beneen vidéo boo xam ne moo ko fi waxoon léegi nag dañu dem déglu li mu waxoon démb bi mu jàkkaarloog sénégalais après ñu dellu waat xool lan lañ ci teg. ma bëggoon tamit wax ci leer. man maa sàkku ci président Macky ñu teg bal à woote waxtaan. kon waxtaan bi du waxtaan bu Macky Sall woote du dialogu Macky Sall dialogu Barthélémy Diaz la mosu leen dégg benn kilifa ci yeewi askan wi bu fi yëkkati ay kàddu ne ñoom d'accorduñu ci du Barthélémy Diaz wax dama ne man lu ma gis dalul suma xel balaa may dee mu am ay nit jóg tey ne duñu Euh, du ñu dem ci dialogue bi su leen neexee wante ñoom dafa am lu ñu lu ñu fàtte wax askanu Sénégal lu ñu fàtte wax askanu Sénégal mooy su amee élection suba ñoom dañuy bokk wante lu ñu fàtte wax askanu Sénégal mooy su amee élection suba kii di Khalifa Ababacar saal du bokk moo yokk ci nag lu ñu fàtte wax Sénégal mooy ñoom lan lañu jot a def ci pexe moo xam ci doxalin moo xam ci lu munti doon pour que Khalifa Sall mën a bokk mais loolu tamit dañuy il faut qu'on se respecte tey Sénégal nu ko Sénégal yi noonu déggee noonu la bi man inventé wu ma dara dafa am ay nit ñu ne ñoom pour ñu nekk candidat élection président ñoom jaral na leen lépp lu ñu am ci nguur gi moo xam ay poste ministre moo xam ay poste institution ñu delloo lépp Macky Sall pour nekk candidat ñun musuñu commenté loolu parce que seen droit la ñu nangul leen mu am ñeneen man du ma inventé man dama leen di wax lu fi am mu am ñeneen ñu ne ñoom pour ñu nekk candidat ñoom jaral na leen ay centaine de bakken di rot Sénégal te ne seen yaay juraat man xasuma kenn mais loolu la ñu wax ñoom loolu moom daf leen ko jarama mi ngi noonu Bart nee na du inventé waaye ci biir wax ji moom dégg naa ci ay inventé sama xarit bi waaw xam nga dama koo bëgg nag Bart waaye am na ay inventé nag ndax li ma wax ni am na ñoo xam ne pour ñu bokk faaw ay centaine de personne faatu après pour seen yaay mën a juraat loolu moom Bart doo génne benn politicien moo xam ci nguur gi wala ci opposition bi benn politicien bu mas a wax loolu loolu moom amul xam naa loo inventé la xaw ma lu ñu la déy léegi nag bi li jàllee ci laa gis ñu génne waat ay vidéo Bart yoo xam ni dialogue bii muy wax tey ni ku mu neqar yaa xam bul dem mais ñoom dañuy dem parce que Khalifa ndeke Bart waxoon na ci dialogue bi après ñu dellu si waat képp ku nga xam ne ni tey dem nga wuy ji ministre de l'intérieur respecté nañ sa position parce que nangul nañ la am nga indépendance wante képp ku nga xam ne da nga woote opposition nga ne da ngay bokk ci dialogue ak président Macky Sall te xalifa Sall ni ngi ci kaso bi Karim Wade ngi bitim réew kooku dañ jàpp ne yow mi complice su Macky Sall nga yow da ngay complot ak Macky Sall te kooku moom daanaka bépp rupture buy am suñu diggante sa bor lay bàyyee ko dañu ne le dialogue national de Macky Sall ne peut aucunement nous parce que lu mu naroon def en amont defu ko référendum nga jël sa référendum jël sa ay point def sa référendum ba lépp a jàll nga soog a wootee waxtaan kooku ab mbiru bëgg nelawal askan wi du ma la mën a wax Maïmouna mooy su ñu wootee fii troisième mandat man Barthélémy Diaz du ma marche. doo bouger du ma bouger te du ma taal réew. te ma ñëw nag képp ku génn ci mbedd bi. da ngaa yeb constitution du Sénégal fa laa yem ci wax ci. sama xel ñaaw na. sama xel ñaaw na. oh, oh man tam ñaaw na di ba ma gisee ca palais demoon na pale dem. waaw mu ngi waaw sama xel ñaaw na. Bécaye ñu ngi koy nuyu di nuyu. Euh, di nuyu Modou ah, Mbaye. la mi ngi noonu ñu ngi koy nuyu baax dama koy tooñ rek Bécaye mm-hmm. en tout cas ñu ngi lay nuyu di nuyu sa doom ja Modou Mbaye euh, Omar gis nañ fi ñaari wax comprendre naa nag nee na dafa am leader bu mu bëgg mu dem moo tax ñi demul ñoo xam moom ñoom dañuy dem ak yu mu wax yépp xam naa di nga ci ñëw mais problème bi mooy bu dee li mu wax ni ku wuy ji complice nga ku wuy ji dialogue te fekk Khalifa Sall mi ci kaso bi Karim Wade mënta bokk ci dëkk eh, dugg ci dëkk bi kon am na benn point bu ko desee muy Karim Wade mu ba léegi duggagul ci dëkk bi xaw ma nag lu soppeeku ak lu changé ak lu tax gars yi di ko xas ak di ko saaga ci internet bi. waaw parce que yooyu yëpp ba mu ko doon wax. Hmm. li mu fi teg yëpp mooy dafa doon ut. te amagul woon waa waaw utkat wala fi ne ne amul jikko. Hmm. waaw bu amee nag jikkoom tàmbalee di feeñ léegi. mooy euh, maire ville de Dakar. waaw waaw moo tax léegi jikko yi moom mun na génn. Mhm. parce que yi mu doon waxee utkat la woon. léegi nag euh, Barthélemy Diaz li mu wax. Mhm. dafa am jamono yi bi Ousmane Sonko di joteeg Adji Sarr mars deux mille vingt et mu taxaw ci benn tele mhm. mu wax mu ne ci biir opposition bi. bari na ñuy wuyoo ay leader fekk ay dealer lan mu tuddee leen ay dealer de l'opposition. waaw moo waxoon loolu mu ne am na ñu nekk seen biir di waxaale ak Macky Sall. Ah te lépp lu ñu waxtaanee lii ñu doon mën a daal ci seen biir am na ay dealers de l'opposition ba am ñu ci gisoon seen bopp. Mhm. tey jii mun na bokk boole boppam foofu. waaw parce que nee na depuis 4 mois mi ngi doon wax ak. waaj waaw waaw te loolu ñun yëguñu ko woon. Mhm. kon ñooñu mu doon wooye ay dealers de l'opposition tey jii mun na boole boppam foofu. mais nee na umpul Khalifa ak euh, ak Ousmane Sonko. non non c'est-à-dire ak Sonko waxu waxuñu moom moo wax. Mhm. waaw bu la neexee nga wax dendale nit. mais man damay rek bëgg a fiyewu ci fee mooy mi moo wax. d'accord du ma ci boole keneen ku muy waxal. teg ci bu dee ni li mu wax moom la gëm dañ ko démocratie dañ ko koy bàyyee mais wolof yi dañ na fu ñuy rendee kenn du fa jooy góom. fu ñuy rendee. waaw dëgg la ko rëb góom waroo wax. son ko hmm. démb daa am lu ñu teg ci kawam neexul benn militant am. Hmm. du woon moment bu baax pour Barthélemy mu génn di dal ci kaw Ousmane Sonko. am na ñu wax loolu waaw. maanaam du moment bu baax. même bu dee li mu wax moom la gëm mais moment bi mu ko waxee baaxul. léegi nag lan la ci jublu parce que des fois mun nga di wax pour fay bor. wala nga wax am koy neexal parce que daa am loo ko bëgg a jëndee. parce que démb dama ne danoo njëkk a yabal Idrissa Seck kii Sonko doxul léegi li Barthélemy ñëw taxawaay ba Idrissa Seck amoon bëgg a créer parce que Macky Sall moom bëgg di ko tudd di ko tudd di tudd Sonko lay bañ. Hmm. léegi nag beneen dualité la bëgg a créer man. mooy barte Sonko Bartu sonk mais bu mu doon ñaan Sonko tey di ko conseillé tey miy dégg. dama naa ko bu dugg foofu. ok que tamit doo bul làng ak ñoom bul nangu doon ndaare. parce que nag li la la démb dama toog déglu Barthélemy ba si yàgg ma ne tey théâtre am na ñu ko mënoon a jouer. Hmm. ma yaaxaanju. yaaxaanju waaw maanaam teen bi jënoon na fee dégg. ma root rootaaleel la. maanaam Sonko dafa root rootaaleel Barth. tey Barth bu toogee tey ci boppu Ndakaaru mhm. campagne bi kan moo ko mënee à Dakar ba Barth mën a am fit bin fi taxawee mhm. ne Barth mënta doon candidat parce que ñu ngi koy woo ci mbiri Ndiaga Diouf mhm. jur boobu Sonko moo woo ay militant am gunge ko gunge leen ko dëgg la maanaam dafa root rootaaleel ko maanaam loolu lépp tey jii demoon na ba àgg ci wax ji sax daan ne bis bu Macky Sall nangoo euh, mairie Dakar dinañ nangu pale bi ci moom bin tollee ci Soham Wardini Soham Wardini ñu ne Khalifa day tànn Soham wala mi tànn kii di mi xalifa nekk ci xini mii ni mhm. waa Pastef fi ñoo génn porter seen candidature ci Barth mhm. bi ñu investir Barth terrain xar yàlla bi lañ ko investiree si jour boobu bi ndaje mi dajee dama ne ndaje mi napp na ragal mhm. loolu bu dee barte am na ci fukki nit téeméeri nit yëpp sonk moo leen fa indi woon d'accord am na jamono joo xam ne tolloon na foo xam ne euh, bu amee fit daa am ku ko fitaloon am na fidde mhm. mais tolloon na benn jamono mhm. fu geesoo day bëgg a gis Ousmane Sonko ci wetam lan moo xew tey jii ba mi mhm. tey jii mun a soppaliku doon lu mu doon daf may a fàttali cadre Idriss Seck en 2004 bi Macky Sall demee ci euh, corps diplomatique yi fii ci Dakar génnee rapport IGE pour ñu déclassifier ko Idriss Seck da ko bindoon benn baat daf na ko pire ne ennemi que celui qui fii ami noon bi gën a bon mooy noon bi nekkoon sa xarit pour mu yàq la day yóbbu macha allah jërëjëf Omar bun Xatab Gueye ci jàngat bi ak taxaw seetlu bi mu def suka euh, Bart de mag ngi gis sax xaw ma ndax dëgg la dëgg waaye maa ngi dégg ñu naan euh, gaa yaa ngay def ndiiraanu désabonné ca Facebook am ba comme nañu defoon ndeysaan sama xarit ba maa ngi koy nuyu amul fii la nga defoon ma jigéen de fii dangay jàngat baa nga kii. Eh, waaw man ci réew mi laa bokk. am fi carte waaw li ma la laajtee xoolal c'est simple xaaral fi ma lay dugal baax na fi ma baax na dama ni la xaaral léegi fi ma lay dugal baax na ma baax na de waaw fi ma lay dugal xam nga lu ma lay dugal mooy est-ce que wuute ay gis-gis def naa Youssou Ndour a ko wayoon war naa tax ñuy bañanteek a saagante Bart bu dee dafa gisee woon nee ànd ak ñoom tey bu nee nii laa gisee xam nga est-ce que jar na ay saaga xam nga soleil bu Bart dañ koo traité de don bu ne avant moo euh, avant moo wax moo wax noonu non euh, bi mu ànd ak Ousmane Sonko dafa xuloo ku ne ndax Ousmane Sonko. Mhm. ñu di ko seetaan muy dem ci plateau yi di di di euh, di bi protéger Ousmane Sonko. Mhm. donc mu doon nitam. nitam boo xam ne comme ni ko am ni ko euh, Omar waxee léegi nitam la. Mhm. parce que da koo jàppale ci fu ne. donc moom nee na dialogue la bëgg moom Barthélemy. dialogue la bëgg te jàmm rek la bëgg. waaw nee na mu dem bi muy waxtaan ak président Macky umpul. Ousmane Sonko. Hmm. umpul ki nga xam ne moom moo di xalifa Khalifa Ababacar Sall. Hmm. donc bi mu waxee nee na bi muy wo bi mu woowee ki nga xam ne moom moo di euh, Ousmane Sonko nit koo woo une heure du matin sa nit la. waaw loolu laa jàpp nit koo hmm. xam ne dem nga ba une heure nga woo ko ngeen waxtaan 30 minutes sa la. donc la fa jub ci ay waxtaan kenn xamu ko moom Barth bu génnee tamit wax am na droit wax wax li mu bëgg a wax. tamit nit ñi danoo euh, xam nga nit ñi boo raggee Ousmane So boo waxee Ousmane Sonko ñu ne yow da baax. Mhm. nga wax ci Ousmane Sonko dara ñu commencé saaga la wala ñu bind la ay du traité la du kii te pourtant kenn xamul dan moo nekk ci ginnaaw. Mhm. est-ce que kenn xamul ba tey moom wax na ba pare mais ba tey kenn xamul moom Ousmane sonk ba xam ñu ngi gisante gis nga ndax politique euh, kii euh, sony bu. Mhm. politique dafa doy waar. si kenn ka sa Seck moo mën a génn tey. dem te àndoon ak Macky Sall ni ko. mu eh, xulóowaat nañ de bul dugg foofu xulóowaat déggoo li ma dama ne yow déggoo li ma dama ni politique. Hmm. dafa doy waar. waaw quelque Idrissa Seck moo dugg woon ci Macky Sall di ko di ko di ko wax lu ne mm. nan ko sa vision ak yemul fu dem ñaajo tey mu ne ko sa vision romb na foofu tey mu génnaat ni waat ni damay chef de l'opposition <laughs> gis nga gis nga kon donc <laughs> àdduna lu ne mën naa ne lu ne mën te ku ne mën nga mu ne nga fu ne dëgg la waaw loolu mooy mais loolu jar na itam ñu di saaga ak naan désabonné leen ci paasam non non jaru ko nag dégg vingt et un ñoo fa des personne ah am na ay am na ñu ko bëgg de Barthélémy Dias. non damaa dégg ñu naan passe ba ñu gaa yaa ngay désamane. Barthélémy euh, am na ñu ko bëgg waaye dama ne est jaroon na loo yooyu. loolu ja ko déggoo li ma la dëkk te xam naa affaire yi nu muy demee te léegi damay toog déglu. ma dama lay wax rek <laughs> dama lay wax rek gra damaa grave fi mu instant bi ñu toll nii. yow de mais trop. macha bokk ci affaire yi. ci affaire ya deal bi. li xew nii ci réew mi yaa lan la lu ah kon xam nga li xew. Mm-hmm. Ah. su ko nee na xam na li xew. <laughs> macha allah nee na xam na li xew. <laughs> Ah. mais c'est politique moom mel noonu son yi bu dafa salte dafa salte du ne ku ne mën ngaa mën ku ne mënee nga nu ne waaw dafa salte gars yi nag lii ngay wax laa dégg saa njóogu ni moom lañ bëgg naan dafa salte dafa salte ñëpp bàyyi ko ñoom non non politique moom demee noonu kenn du ko bàyyi ak ñoom nag inshallah ah. politique nag moo demee noonu ku mënee nu ne hmm. di a politique d'accord bu fekkee da am noo mel yow hmm. juste intègre am loo xam da nga koy bañ doo mën a politique mais politique mënee na nu ne mais ku ne ko boo am na noo xam boo ko melee mm. ni lii duma ci dugg duma def nii doo mën a politique mais fekkee nga mën a wor mm. mën a wur wur mbaj mën a wur lu ne mm. da ngay mën politique amee si nag euh, ajaratu mi ngi noonu jaajëf Adja mm-hmm. euh, Bart de euh, gaa yi koy saagatee ñoo ko ajoon ba ci kaw di ko neng nengal ñoo ko protégé woon ni ko président Macky Sall kii intouchable la bu ko laal gaa yooyu tey ñoo ni ko woon Njaga Juuf mi ñu lay jiiñ rayoo ko te doo wuyu ji kenn du la laal sa mairie bi ku ko laal laale tey nag ñooñu ñoo koy attaqué est-ce que li mu wax jar na ko li mu wax jar ko jaru ko mook ñi mu ñi mu bokkal langue politique bi ñoom ñooy xool ñun nag ñun ay acteur lañu ay ay ay ay téléspectateur lañu rek yu toog di seetaan di jàngat. Hmm. wala boog di jéem a xam li nga xamante ni moom la ñuy wax man baat ni ma ko dégloo démb parce que démb lu raar ma gis politicien di wax ma déglu ko ba mu jeex. Hmm. waay waay démb moom déglu naa ko ba mu jeex. wax dëgg yàlla vingt une dafa jot rek ma jàpp Walf. Hmm. man li ma jàngat ci waxu Barth mooy koo xamante ni je pas xaw ma dafa dafa dafa. am mer bu mu dencoon wala mm-hmm. dara te mer bi xam naa ni ba fu muy mujjee mm-hmm. ci kaawu xalifa Ababacar Sall lay jógee parce que ci biir waxam mm-hmm. heure bu waxee revenir na ci defe naa deux wala trois fois que ni ñoom ñi ñuy àndal du dara benn act wala dara lu nu posé lu jëm ci éligibilité euh, Khalifa Ababacar Sall tey jii mu ne tey bu élection amoon xalifa Ababacar Sall du du du du mm. bokk bu amoon tey jii Ah, Khalifa du bokk. est-ce que njuum amul foofu Adja ci moom. parce que Sonko keroog mars bi mu génnee boo seetloo neuf points yi mu tegal président Sall Karim ak Khalifa ñu delloo leen seen cër ci la bokk. maanaam amul conférence de presse bu muy def lu dul ni nañu delloo ñaar ñii seen cër. nekkul ci loxo. doon na ko wax laa bëgg a wax doon na ci wax. waaw mais dafa ni. Mhm. moom dani posé wuñu benn acte. Mhm. wala ñu def dara loo xamante ni day jëm ah, ci kii nangu amaat éligibilité loolu man dégg naa mu wax te def ci insister donc man damay comprendre ni man nag li tax euh, li tax euh, nee na aussi mhm. am na question bu reelu bu ko Pierre Edouard Faye wax mu ne j'ai j'ai mis de l'eau dans mon mhm. parce que bu ma yeewoo sama kër pa bi laay dégg pa bi pa bi pa bi je sais xaw ma dafa gagné en maturité xaw ma ànd bi da doon ànd ba mënatuñ ci waaw xaw ma ànd bi dañuy ànd ba mënatu ci nekk wala yu bari mënatu ko mais bu nu tegee ay vidéo yu bari yoo xamante ni waxoon na ci mhm. waxam demeewul woon nii te bi ma déggee mu naan bu nu dem wuy ji ministre de l'intérieur ak yooyu mhm. boobu mooy bi xalifa Ababacar Sall nekkee ci biir prison bi mhm. man defe naa ni loolu la wax nee xalifa Khalifa nekk prison ak yooyu te dama dégg ci waa kër Sonko yi ñu ne say nit mënuñu leen a jàpp def leen ci prison bi ngay wuy ji dialogue ce qui veut dire que ni moom ah. peut-être fa mu de fa mu toll woon ba bañoon a wuy ji tey fa la ñii tollu ba ni duñu dem peut-être sama xalaat la euh, ba ni duñu wuy ji dialogue bi waaw muy loo xam ne ci xalifa ba ni bu génn duma ñii fa lañ toll ba ne bu ñu génnul duma peut-être man man sama jàngat la lu ma constat la bu ma def je crois que loolu moo tax ku nekk sa tolluwaay ngay waxee macha allah jërëjëf Adja borom set set macha allah ku la dégg xam ni macha allah waaye Ousmane Sène daf ma trahir Ousmane <laughs> alaaji li xew yëpp de déglu nga xam naa ni hmm. eh, gannaaw ba nag li xew ba mu xewee ci la li xew xew maanaam Barth ñu di koy attaqué di ki mel ni kuy asaar ñëw ci kaw est-ce que loolu la <laughs> waaw xam nga keroog bi président Macky Sall waxee ne Barthélemy je vais dire ton père tu bien travaillé. Mhm. maa ngi soog a xam li Barth doon liggéey. parce que dama ne woon président Macky Sall bu ñu ko laajoon lu Barth di liggéey. Ah, jàpp ma ni xam na ko. man waaye ndekete xam na kon li Barth di liggéey. Mhm. moo tax mu ne ko tu as bien travaillé. Eh, leneen li am Barthélemy déglu naa ko mu wax. Mhm. Euh, waaye euh, gëwuma ko. gëmoo waaw parce que dama wax ni. nee du wax du wax lu ko lu mu xamul de. waaw li Barth wax. ak li feeñ ci pénc mi dafa wuute mm-hmm. te ci ay waxam laay tënku pour wane ni e, bi ma ko dégloo wax ji dafa woroo ak li xew mm-hmm. Barthélemy dane mm-hmm. ñeenti weer mi ngi waxtaan ak président makisaal Sall te ñaar ñi ñoo ko yëgoon kenn ki mooy usmaan Sonko keneen ki mooy Khalifa Sall bu waxee ne xalifa Sall yëg na. mën naa gëm ni xalifa Sall yëg na parce que depuis ñeenti weer Khalifa Sall démissionné na ci. waaw jiital mhm. di commencé di def ay activité politique ci àll bi waaw. kon kooku nur na ni ñu ngi waxtaan. Mhm. doxalin yi nuru na ni ñu ngi waxtaan te Barthélemy tamit na mu daan doxalee. Mhm. wàññeeku na. si waaye depuis ñeenti weer bu ñu jëlee Ouska usmaan Sonko mi mu ne doon na ko waxal. ci lañuy toj otoom ci la ñuy jàpp ay militant di leen tëj. ci biir ñeenti weer ci lañ leen di rëbb. ci biir ñeenti weer képp ku ñu njort ni. yow mii kat soppe kii nga ñu jàpp la. Hmm. loolu yëpp ci biir ñeenti weer yi. loolu mi ngi am ñëpp gis acharnement bi nga xamante bi am nañ ko ci Ousmane Sonko. te Bart nee na boobu mi ngi wax nee na. Hmm. mi ngi négocier. Hmm. di wax ak ñoom. Bart wax ñu waat leneen. ne ñu dem na ba yëkkati téléphone ba ba président war a wax ak ñoom téléphone. Mhm. waaw loolu wax na loolu mais lu tax loolu mujjuta a loolu mujjuta am waxuñu li tax loolu amut. waaw ndax ci biir ñi mu bëggoon a jox téléphone dafa am ko bañ kan la. waaw kan moo bañ a wax ak euh, président Macky Sall parce que daf ne dem na ba président nangoo wax ak ñoom téléphone. léegi lan moo xew ci diggante bi. ba ah, loolu amul d'accord loolu tamit Bart war nañu cee. Euh, indil ay leer man dama jàpp Bart. bu ma ko analyser waa parce que dama ne Ousmane Sonko démb dafa Ousmane Sonko bërki démb dafa wis puudar bi rek hmm. man dama naan dafa wis puudar bi mbuur di ndaw yi génn man noonu laa ko noonu laa gisee mbir mi parce que dama jàpp ni man dama jàpp ni Ousmane ko bi muy wax da ne benn leader baax du leader ci yeewi leaderu yeewi moo hmm. ma woo téléphone hmm. ne ma gisee na ak président ba pare leaderu yeewi la wax waxut Barthélemy Barthélemy nag dafa ñëw génn. ndax dañ ne ko booy demal kër ga lakk na. Ah. ngir mu jóg pour ñëw pour jéem a jël mbir yi est-ce que du booy bu ñëw rek pour wax. Barth ci leader yeew parce que tey bu ñu ñëwoon Khalifa Sall. mi ngi doon waxtaan ak président moo gën a garaaw ñu ne bart mi ngi ah. doon négocier ak président. ah loolu nu kii te Khalifa ne réew pour mu dox fa waxtaan am. Hmm? waaw moo tax ma ne. moo tax ma ne réeroo kañ waxuma ko dama ne réeroo wuñ dama ne déggoo comprendre ante mais Bart mi bëgg a génn pour wax waaw dem Bart bi mu waxee ba pare Khalifa Sall dafa bëgg communiquer soutenir Sonko masawu ko méttul lu liñ ko teg ci àtte bi maanaam diggante waxi Bart ak waaw ak kii waxi Bart ak ay kiiwu Sonko kam kam maanaam kii dañuy jouer ah. dañuy jouer ñaari affaire xam nga lu ñuy jouer mooy la mauvais flic ak bon flic mhm. kii day ñëw dóor fii ñu nee nii kee ñëw kii gis nga Khalifa Sall sax tey ni mu waxee ci conférence conférence ah, du tas du def nii yooyu yëpp c'est pour euh, maslaawaat mbir mi mais lii am am na ba pare maanaam lii am ku fay toog naan du tas ak tas na hmm. yow yaa xamul xew nit ñi moom classé nañ yëf yi na mu demee ba pare yaa ngi dégg donc loolu mooy li nga xamante ni bii mooy euh, li war a leer gis nga nag bu ñuy wax politique gis nga politiciens yi bu ñu ñu nax gis nga tey bu ñu waxee naan ñu non politique la lii mooy politique lii mooy non mbir mi du loolu. ay nit ñuy ànd lañ nit ñi dañuy ànd ci ngor munuñoo ànd ci ngor ak kuréel goo gis loolu la buñ ci dugal naan politique la mel ni politique. lu spécial la loo xam ne nit mën na faa def naka sudut noonu ñu nangul ko ko c'est parce que day politique. Mm-hmm. nit ki lu mu def bu ma waree bétti wala ma wor Omar mi ak wala ku ma ci mën a war. même bu fekkoonte ni parti politique la warkat la bu fekkee n du ñu parti politique it warkat laa. loolu mooy dëgg parce que nit ñi. defuñu lu dul jiwante ngor waaye di def say mbir ci suuf ba noppi wëlbatiku di wax naan lii nga xamante ni bi noonu laa def kii yëgoon nag ndax léegi fi mu toll xam nga tey jii gars yi li kon séparation bi c'est inévitable yow pour yow am na ah discours xalifa nag. discours xalifa bi discours mën naa ñàkk. mën na discours xamala la mën na discours xalifa bi xam mooy discours lan. discours yàqoowut ci ñun. loolu dong la waaw mais euh, yow mi yow mi déglu daal loolu xam naa démb dédouané na aba xalifa Ababacar parce que nee na bi may génn di wax bi ma ko waxee xalifa wax na ba sonn pour ma bañ a génn wax ma ne ko damay génn waaw loolu mooy li mu mën a wax rek xam nga dëti li ñu lay wax ci kaw ak lay am suuf du moo ne ko demal waxi <laughs> bëti kanam bëti yow déggoo ko mu ni mu ni bu yàqu bay boo mu yàqu déggoo léegi ci <laughs> wax loolu nee na nee na daal nuñ ko gisee ñoom ñoo xam mais bu dee na yàqu na yàqu man xamul ndax. na Sonko Sonko pour mu cohérent affaire dafa war a yàqu. Ah, non non non non coalition jot na moom la bokkoon. la mu séq waa jot na. wuy ma jot na ñoo gënoon a jege eh, Pastef. jot na jot na. bi ci amee ñi yollee ko oh. dem seeti Macky Sall. Hmm. Sonko dafa bëgg communique ne li ñu def ànduma ci banaa coalition jot na ñi nag li ñu def moo gën a ñaaw. waaw te 2019 nag wax dëgg yàlla hmm. troisième bi ñu wax ni moom la jël moom képp a àndoon. demul ci coalition jëmul ci dara. waaw àndaat baax na kenn kenn Idrissa Seck lu mel def nii da nga war a leb kooku dinaa ko ba du ma ko bàyyi ñoom bokkul bu ñuy def kii nga fi tudd dinaa ko tudd ndax moo fi def moo ko fi def moo def la sa dëkkandoo la sama dëkkandoo la te sama nit sama mbokk la sax ñu gën a dee jërëjëf kon Adja lii lañu indi woon di wax ni Bart loolu la man fii laa daan toog di wax ni ñaar ci Sénégal ñu ma a wor ki nga xam ni moom mooy euh, yeewi askan wi ak Ousmane Sonko yow ci nga bokkoon ak Déthié Fall waaye nee naa leen damaa juum nag waaw juum dootuma ko wax maa ngi jéggul Sénégal yëpp ci loolu ma waxoon wax dëgg yàlla li ma waxoon dara amu ci la ma foogoon amul waaw la ma foogoon daal amul ndeke yow kon ba alxamis ba alxamis kon ci kàttanu borom bi ayca incha allah <laughs> doy na waar ayca li nga indeeti amatina solo son yi bu jóob